Et je crois que là, le, le président, en tout cas pour Moi, les je gens. Je pense qu'il qu en est conscient. Mais, mais, pour mais, laquelle mais, mais, le tout mais, mais doyen bi li mu wax ci li mu wax ci la la place et le rôle que doit jouer l'opposition aujourd'hui man pour man candidats yi ils sont en train de le jouer. bi ci njëkk moom mooy euh, depuis que Macky mu ngi jël ay décision li tax conseil constitutionnel ñëwaat ci ñëwaat ci décision boobu noonu ci décision bi abrogé woon la convocation c'est que ce sont les candidats qui ont saisi le conseil constitutionnel mu indi donc ñoom ils sont en de jouer li nga xam ne moom mooy la la bataille juridique y a aussi un autre aspect bu nga xam ne moom mooy la bataille politique mooy li ñu war a def yëpp ñu ngi koy wax ñu ngi wax ak population je te bi ñu jëlee euh, la décision donc arrêter le processus électoral amul benn décision amul benn décret bu génn dañoo kon continuer def suñu campagne électorale def suñu ay VAD continuer di sensibiliser population bi importance bi nag di doyen bi wax léegi nii lan la acteur politique ak aussi les candidats ki sont les premiers concernés parce que tey jii nii dialogue bu doon am ba ñu war ko nangu sax Macky Sall il doit seulement parler avec les candidats yi nga xam ne ñoom la élection bi concerné ak un seul point c'est un seul point la date de l'élection maintenant ñun li ñu gëm ñun tey jii ni au niveau de notre parti le parti de l'unité du rassemblement mooy on va parler avec la population mais dinañ am foo xam ne bu ñu fa yegsee à la date du 2 du 2 avril il faut que ñaar mooy mën a am mooy le conseil constitutionnel va certainement constater la vacance donc du euh, de de de la présidence mais il faut que la population sénégalaise aujourd'hui tamit ñoom ñu xam gravité bi nga xam ni moom la ñu dund parce que aussi am na réew fu muy toll du politique yi rek ñoom ñoo ko mën a régler il faut que population xam ni politiciens yi dañu am benn part mais askan wi aussi le pouvoir appartient au peuple tant que la population n'est pas euh, en fait euh, aussi engagée que les acteurs politiques dinañu continuer di jalgati sunu àq ak sunu yelleef yooyu noonu te li ñu ci bëgg duñ ko am maintenant ñun li ñu li li ñu ciy proposé tamit mooy li li li li nga xam ne moom la moo wax peut-être ma def ci benn brèche concernant li nga xam ne moom mooy euh, yenn candidats yi ñu war a juger mort yi ñu war a diriger est-ce que tey euh, concernant seen probité concernant seen sens de la valeur seen déclaration sur l'honneur man dama gëm ni décision bu conseil constitutionnel bi génnee liste yi bi mu amee mise à jour ñu war a génnee Rose Wardini conseil constitutionnel dafa jël beneen liste bu ko génnee parce que mais ba tey taxul conseil constitutionnel ñëwaat ci ay décisions yoo xam ne c'est c'est en fait c'est sur parce que yooyu noonu loi bi daf ko régler ñi nga bu ñu demee ba ñu remarquer ay irrégularités sur les sur ce qui a été déposé par certains candidats dañu wax ni bu ñu demee ba ci jour élection yi ñooñu seen vote dañ koy day nekk noo xam lu nul la mm-hmm. loolu moo tax nag pour man fi ñu war a posé wu la question mooy balaa ñun ñuy askan wi di tànn di xool kan lay jox kàddoom moom mu bàyyiwaat xel ces valeurs morales la parce que gis nga gis nga Sénégal tant que tamit tey bàyyiwuñu xel bàyyi bàyyiwaatuñu xel li nga xam ne moom mooy la moralité dans la scène politique mhm. situation yi nii du fi jóg parce que on l'a vécu avec Abdou Diouf on l'a vécu avec Abdoulaye wadd on l'a vécu avec le président Macky Sall te ñun dañu jàppoon ni moom le président Macky Sall ne après les indépendances lii warul woon a nekk li nga xam ne moom mooy cëram parce que sénégalais yi lebaluñ ko lii nii maintenant ñun nag on une nouvelle classe politique parce que bu ñu defee l'analyse aussi ci candidats yi nga xam ni ñoom ñooy ñëw dans euh, ci élection bi nii y a de nouveaux profils y a une y en fait y une différenciation programmatique au-delà donc de l'aspect dialogue ñi ñu miinoon ñuy def politique y de nouvelles têtes qui sont sorties ñoo xam ni li ñuy wax boo ko déggee da ngay xam ni ñii jox nañu cër askan wi jox nañu cër état de droit parce que réew bu ñu demee ba respecter institution yi ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu jiite bàyyeetuñ ko xel dara de sadu fa moo tax nag moo tax nag population bi dama koy wax rek ci ci fe ci ci balaa may jeexal mooy nañu nañu bàyyi xel nit ñi seen probité nañu bàyyi xel programme yi mais surtout président Obama dafa waxoon ni l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts il a besoin d'institutions fortes mais ay institutions lu mu forte forte fort dañ nit ñi koy ak ñoo koy incarné nit ñooñu bu ñu nekkul ay nit ñu fort ñu màbbal institution yi te loolu noonu la ñuy assister tey jii nii avec le président Macky Sall et l'impasse aujourd'hui qui nous a mis au niveau de l'élection présidentielle ñu jàpp ni aussi conseil constitutionnel moom mooy suñu yaakaar que dina constaté waat loolu ba mën a waxaat le droit pour mu